ministre de la justice. Mhm. koo xam ne nee nañ bi mu ne jàppal diw ak diw lan la jëkk wax mooy lan la ñu def. Mhm. kooku boo ko joxee justice war nga xam ne justice mënul ñàkk ko ci. xel dal na ko xel dal na. beneen bi des na waa pouvoir bi am na ku ma dégg ci ñoom mu rëcc la wax ne. Mhm. gars yi fexe nañ ba souvent seeti na si seen juge yu placé leen waaye si yi ñu fal ñoom dañ leen a xamut. danañ am ak ñoom problème ndax danañ bëgg ci ñoom dara duñ ko nangu. kon des ñoom accepté nañ ne siis yi ñoom ñu jub Mm-hmm. ñu jub lañ léegi nag psychologiquement xamuñ ne ñi leen ñi leen fal jub ak jub lañ jël wër bëgg ak njub moo tax ñu teg leen fa mm-hmm. xam nga mm-hmm. léegi bëgg ak njub moo ñu def leen fa moo tax ñu teg leen fa yow nga wax ne ñoom daañu leen sant duñu leen def kon kii kii kii ki nga xam ne mooy santaane loolu noonu bëgg ku ko def du fa teg ku ñu sant nan ko defal muy bañ ko ko weddi laa jot Macky Sall boo demee ba bëgg ne si bu ma sant da ngay def nangam xalaatul teg fa siis yoo xam ne maanaam daleen leen sant duñ def te loolu Sonko kenn gënu ko xam ndax Sénégal dëkk Sénégal boo ko opéré ba xëy am candidat ànd ak moom ngeen présidentiel mu gañ ngeen ngeen dem ay législative ngeen gañ ngeen dem ay local et cetera et kooku maanaam xamul Sénégal loolu nit di wax muy jëm kaw. Mm-hmm. man loolu li ma ci man loolu li ma ci gis muy barki démb seetaan naa ñu jël Lat Diop ba nekkoon ndeysaan li ñuy wax garde à vue. waaw ah, Lat Diop yóbbu ko garde à vue Lat Diop moom euh, euh, avant ma ci damaare man li may wax rek képp nit ku si siis di jàpp. maa ngi ñaan yàlla si si jamono bi mu lay enquête ngir laaj yàlla na fekk ci yow maanaam nga gën a set ñi set ci lañu leen di toppee bañ mënula bàyyi nga dellu sa kër ma loolu laa loolu laa leen di ñaanal waaye itam bu fekkee ne nag dañ leen a seet ba xam na ñoom li ñuy def ñoo ko lii ñu leen toppoo ñooma la ma leen di ñaanal mooy yàlla na yàlla may ak dëgër bañ mën a affronter muñ nattu yi ñuy daj ci yi ñuy seen kaw ñu di ko tuddee ay sanctions yooyu man moom laa leen di léegi nag ñoom ci seenu doxin ñoom ci seenu doxin hmm. ñoom ci ancien régime bi ñoom xamoon nañu ne suñu ñàkkee pouvoir bi nii rek lay demee. Hmm. te man loolu euh, Lat Diop tuumaalu ma ko de ndax xamalu ma ko dara waaye da keroog bi élection présidentielle di di dëgmal si gis naa ko mooy def ay sorties yoo xam ne man sorties yi dafa àndut ak xel àndut ak xalaat àndut ak xam-xam sorties yoo xam ne lépp ak tiitaange moo ko dal tiitaange tiitaange mooy. moom xam na li def xam na ne jomaay mii laaj nguur gi bu ci jotee mën naa tar ci moom wala mën wax ne Sonko nangam yooyu kàddu mënee su ko tudd mënee su ko tudd fi yooyu kàddu mu ne den mënee su ko tudd loolu da ngay gis na loola di ko yóbbee mooy ndeysaan ñàkk sago ak xam ne ba élection amee présidentielle fi mbir yi jëm moom du ko du gën ci moom du gën ci moom mooy dama jox benn xistatu rek bi yàlla doogalee Seydina Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha Seydina leen karramallahu wajhahu di def benn xaswa ko wax yowmal jumal keroog bu ñu defee bi ñu dem ba waaj ba war a jàkkaarloo xeex di ay saxaabatu rasul de keroog dem nañ ba commencé di waxtaan ci guddi gi ba commencé am consensus ñu bañ a ñu bàyyi xeex bi waaye xam nga problème bu amee. Mhm. bu ñu fexee ba problème bi maanaam ñu teg ko ci taabal ci faaw nag ñu situer ay responsabilités yoo xam ne ñii ñoo waral problème bi ñooñu xam ne problème bii bu ñu ko tegee ci taabal ji ñoom ala mukk ñoom ñoo def defaange bi te dañ leen di rey. wala ñaan ati tëj leen ñu ne kon nañ fexe ba ñun suñuy pexe sotti bu jaxasoo amee kenn dootu tal kenn kenn dootu tal leen duñu dala sujet loolu nag gis naa ci Lat Diop ci jamono ba bi moom la mu bëggoon mooy ak jaxasoo am jaxasoo ba amoon élection ba jaam waaye laa ba élection amee ñu def seeni manœuvre ba Amadou Ba gagné comme ni mu ko bëggee woon lii mu nekk mu bañ cee nekk moom xamoon na la xew xamoon na la xew na la xew parce que Lonaas jaar na Lonaas jaar na AIBD AIBD dégg naa koo xam ne xam na ci am na ci xam lool muy El Malick Ndiaye bu ci am expérience koo xam ne it secteur boobu actuellement moo ko yore muy transport aérien ak transport terrestre mu ne jamono bis bi ñuy def maanaam euh, prestation de serment président de la république Bassirou Diomaye Faye nee na bis boobu nee na signé na ci trente trente contrat mm-hmm. loolu rek dèjà dafa illégal jëf jooju nag boo ko gisee nit la gën mooy yow nga jël sa temps seet seet seet la jiitu ci ay mbiram te boole ci itam euh, ki ko woo di ko laaj fi ne euh, ay kii la teg maanaam ay ay ay preuve à la bibliothèque ne ko lii ci ay rapport la baw nangam ak nangam ndax yaa ko def am na ñu ne mbirum waa jooju ñuy wax sérum bànce ki mooy sniper bi ñu ngi koy laaj ci ay question ñu ngi koy laaj ci ay mbiram problème boobu nag man damaa jàpp ne su dee ndax moo tax ñu woo ko jar na ko bu dee affaire alal Sénégal moo tax ñu woo ko jar na ko léegi nag mu desaat woote bi woote bi gars yi il faut ngeen loyal gis nga xam man mi sax état am na droit jékki-jékki laaj ma woo laaj ma état dafa am droit xëy xëy jox ma kayit wala ma xëy ñëw sama kër gaarate ne ma dugal fu ngeen ma jëmee ñun dañ la soxla loolu état da koo sànc population bi ñëpp li état sañul kay mooy jékki-jékki tëj ñett deful dara wooteen Lat Diop yéen a ko bëgg a politiser waaye Lat Diop moom xam na ne moom ñu koy woo war nañ ko woo ki koy woo xam na ne war na ko woo te li mu koy dooyee man jàpp naa ne Lat Diop xam na ko ah mi ngi su mi mi ngi garde à vue yàlla bu mu ko laale yàlla bu mu ko def man yàlla bu mu ci laal yàlla mu ko def ba man a fiix dellu këram waaw balaa àgg ci ne ñoom mandat de yàlla bu ko def léegi nag bu ci eggee na ko seere bu ci eggee na ko seere. kon wàllu woo gi nii daray politique nekkul. jë poli non non politique mënu ci ne gis nga ñii nii man seenu doxin gis naa ne dañoo sérieux lu trop. Hmm. waaw dañoo sérieux. kan ci Jomaay ak Jomaay waaw Jomaay ak PM dañoo dañoo sérieux. Hmm. dañoo sérieux mooy gis nga li PM wax dafa leer bu ngeen gisee mbir mi yàq lenn rek la mooy bëgguñoo jàpp kenn di jum ci dossier maanaam bëgguñoo arrêté kenn di jum ci dossier te loolu mooy la importance nit ki. soo amee moom problème te yéen war ngeen seen xel war naa rafet ci Ousmane Sonko xamul dafa war ci rafet mooy Sonko nee na leen man lu ngeen ma def personnellement man baal naa leen li ma bàyyi wut mooy li ngeen def Sénégal kon kooku de sax fayantoowul te du fayantoo fayantoowul te du fayantoo li am solo mooy yéen ñi jëloon alal ju ngeen moomut na ngeen am yaqeen ci ne moom am ngeen problème problème bi nag yéen ak yéen ak yéen ak yéen ak seen problème la waaye yéen yàlla mi na sàkk seetaan lu ngeen jàpp ne moo rek ngeen teg ko tere gi ñu tere nit ñu kenn léegi ñu ne waa amul benn siis bu bu desal mandat mandat d'arrêt wala siis bu wax ne dañoo war a téye diw gis nga gis nga àtte hmm. nit ngay téye ko bul tukki man damaa gëm ne àtte boo gis li ñuy wax borom xam-xam bi di wax ahkaamul ahkaam maanaam usuliyatul ahkaamul ahkaam maam àtte boo gis dafa am dafa am ay ay usul maanaam cosaanul li tënkoom àtte bi hmm. mooy gis nga euh, ki nga xam daa ñëw ji bi ne dangaa ñëw sa kër dangaa ñëw sa nekk. Hmm. tombeek benn waay bii génn génnagul sa buntu kër nga dugg xool sa téléphone ba nga fa tegoon gisoo ko dégg nga nga dem dabi ko ne ko taxawal xaar bañ seet sama téléphone ba pare. Hmm. nit ne ko yow wuroo ko taxawloo parce que attekat attegu ko ba ne ko yaa jël. Hmm. déedéet wala yaa ba soxna daaw isa isa maa doon. alxuraan daf ne bu doon bañ. doon ay témoin bu ñu leen wooyee ngir ngeen nekk ay témoin léegi nit ki nga xam ne au plus walla walla lu du yeggul dara si si dana ko dana ko soxla mooy Lat Diop tey jii keroog bi muy génn bu ko si si bu ko bu ñu ko bàyyiwoon mu génn Lat Diop bu ñu ko soxlaa fu ñu koy wëree boobaa ñoom ñi boobaa ñoom ñi ko soxla so day mel soxla wuñ koo gis sax toogal xaar ndax dañoo dégg na dañ lay soxla yow kooku loolu aajuwul si si si ci yoon. aajowul ah, si si di ci am yoon. kon yomb nañu comprendre. ndax yomb nañu comprendre usoolul ahkaamul ahkaam yi mooy nit ki bu la wóoree ne maanaam midi bu la doon huit heures lañ la téye ne la ndax midi dañ lay soxla dégg nga. Hmm. nga bëgg a tukki tukki boo xam ne wóor na ne fii ba cinq heures ca laa la wax dana fekk sax daa bëggoon fa nga jëm bay wax ne soxla kon effectivement dañ laa war a mais sànq am nga koo fi tudd de ñu bëri di laajte mooy kan. Jérôme Bandiaky loo ci xam ci moom. waaw Jérôme Bandiaky moom ñoo ko xam ñun ñëpp ñoo ci bokk même xam-xam bu ñu ci am ndax turam bi ñu ko tuddee sniper da ko ne mooy ab dànn ci wolof sniper. Hmm. ab dànn koo xam ne. maanaam day ah? day natt di tiire day natt di tiire te bu nattee. day jub xocc day jub xocc te bu wiisee. day dal te bu dalee li ci gën a bari day rey. Hmm. gis ko nag mu yor ay gànnaay gis itam. ci internet bi ay nit yooy yor ay gànnaay yoo xam ne gis nga bi ñu koy avanté ci seen loxo ñu gis loolu am na bu mu xonq la sol wàcce ci pega bu police yi. moom da cee laale. loolu wóoruma waaye wóoruma ne laala na ci xam nga waaye waaye ñi mu doon dundee dafa jaaru ñu téye ko xam ndax laala na ci laala ci xam nga si si ñoom ku ñu téye. Hmm. ah jubluwuñu jubluwuñu laa téye parce que dañ laa bëgg a téye rek téye la dañoo ba am lañ xam xam nga mbirum Fulbert Sambou ak Didier Badji. Hmm. mbir la moo xam ne